ñuy dugg ñu nga fa lu ñuy def ñoom ñuy toog waxuma laa nag lu jëm ci téléphone bi demee noonu li xew tey dafa firndeel loolu ndax ñun dañoo jugee ci conférence de presse dañu doon defee ci siège du PRP bu Déthié Fall di génnee noonu gis benn waaye boo xam ne mu ngi toog ci kaw suuf la mel ni kuy waxtaan ak ñeneen waaye yor téléphone am di ñu filmé gis téléphone sama sécurité ko ñu interpellé ko laaj ko mu ne moom brigade de recherche la nekk sa carte euh, mu ne lu ko génne wala yoru ko ñu xool ci ay bagages yi mu yoon gisuñ ci dara ñu jël téléphone xool gis ni dëgg effectivement mu ngi doon filmer li ñu doon def li ñu génne ci seetlu li ñuy egsi foofu te la ñu may leen comme nee na euh, brigade de recherche bokk jarul dóor jarul kuloo nañ ko yóbbu gendarmerie foire te lañ ko yóbbu gendarmerie foire Ndeew foofu lay dogal leeral ne moom police jëppal la bokk daal di génne carte professionnelle am daal koy wane ngeen gis ni ci ni mu soloo kenn mënul xam ni policier la ndax dafa civil eh, ni ñu jëflanteeg moom yéen ñëpp gis ngeen ko ci ni mu doon wax ak waxu policier donc ñu jàpp ni loolu lu doy waar la lii téléphone la mi ngi nii ñu war leen image yi daanaka bi ñu génnee eh, kër Déthié Fall ba ñuy egsi ci moom mu ngay filmer di ñu xool te lii du tey du guleet lii nag euh, moo tax ñu yóbbu ko ca police ba fi ne nii tembe auto police ngi nii gaare sama buntu kër nee nañu téléphone bi la ñu jël si te dinaa leen ko yéen yéen ñëpp ngeen gisandoo ko su dee nag defuñu euh, buriwuñu ndax dañu mujjee am loolu problème boobu ci ñu doon surveiller fii dañuy ah dégg naa waa police dem nañu xam naa dañoo gis live bi moo tax ñu gaawantu taal seen oto dem waaye ñu ngi woon fii sama buntu kër téléphone bi nag saa ñu ko bëggee jël mun nañ ko ñëw jël si loolu amul benn problème eh, lii nag du guléet may wax ni kër gii jàkkaarloog sama kër luyel nañ ko benn seet benn waay boo xam ne ci renseignement généraux yi la nekk lu mat at ak genn wàll mu dëkk fii ñi daan seetlu kër googu bi événement yi amee ci mois de février mooy kër bu policier yi yéegoon yor seeni fetal di tiire mu jëm sama kër kër googu ñu ngi ko li woon benn renseignement jëloo boo xam ne du ma wax fii turam ndax am na lu may sàmm lu ma koy sàmmal mu dëkk lu ma at ak genn wàll di ma ko bay boobu ñu bi tàngee ba ñu yëg ko xale yi dañuy dem tànk char de combat seen véhicule benn police yi ñëw gaare ci buntu këram bi ñu xëy la lendemain la gaare camion moom ak njabootam yépp ñiibal leen seen bagage yi dem ngeen fàttaliku ci gannaaw bu yàggul torop tamit li fi xewoon mooy seen oto boobu nga xam ne ñu ko gaaroon ci sa buntu kër ay matériel électronique nekk ci ñuy espionné li xew ci biir kër gi ne ñi nee nañ ku demoon gannaaw kër sax seen oto boobu mënoon na ko gis loolu nag musiba la ba ñoom accrochage ak sama sécurité ba tey jii ñoo ngi yónnee wala di essayer xool fu ñuy jaar pour lañ ci bàyyi woon muy ordinateur bi nga xam bi ñu amee accrochage ak sama sécurité moom lañ ci baax ñu ne ordinateur boobu ba léegi dañ ko bëgg jël may wax waa police nag ni su leen neexee muy téléphone bi muy ordinateur boobu mën nañ ñëw jël si ko mën nañ ñëw jël si ko booguma sénégalais xam li ne ci biir yëpp ndax euh, am na loo xam ne ci suñu euh, kaaraange la bokk waaye may fàttali waa police nationale ni ñoom dañ fay nekk pour Sénégalais yëpp dañ fay nekk pour kaaraange nit ñëpp rôle bi ñu leen di joué naam mënuñu ci dara sax waaye du rôle bu rafet sàcc si bëri na ci réew mi samba yi bëri na ci réew mi problème sécurité am na ci réew mi ñu jël seen dispositif boobu yëpp ne dañuy surveiller Ousmane Sonko la lii am tey ñetti weer ci gannaaw ñun demoon nañu ba am firndeel bés bu ne fële sama bopp koñ dañuy gaare seen ñaari scooter bokkul nag ak ñi nga xam ne dañ leen di teg ci koñ bi ñu mel nii ay ñii naan mel ni ay vigile ñi mel ni ay ay ay euh, employé ci ay kër am na benn ministre bu ne fii ñoo dëkkandoo këram la ñuy añee bis bu ne ñu teg leen foofu saa su ma génnee fu ma munti dugg ci ndakaaru ñoo ngi topp ñu ngi may topp ak seeni moto ñetti weer ba léegi biñ ko biñ ko seetook léegi amaana gën naa sori loolu ñetti weer ba léegi def nañu suñu dispositif ñun ba ñoom seen bopp ñu ngi def filature ñu ñu def leen contre filature ba tey yor naa fi ay film yoo xam ne filmé nañ leen ñu topp ñu ñi ma samay nit topp leen fu ma taxaw ñu taxaw fa fu ma dem ñu dem fa du benn du ñaar du ñett filmé nañ fii kon damay wax Macky Sall na noppal boppam lii lépp jaru ko moom ak as as looloom di de mu teg foofu muy ministre de l'intérieur dañu noppal seen bopp ñun duñu ay préparé wuñu coup d'état duñu ay terroriste yéene ñu réew mu bon ay acteurs politiques yi yoo xam ne dañoo am suñu gis-gis bu safaanoog gis-gisam am suñu bëgg-bëgg ci réew mi bu safaanoog bëgg-bëggam te loolu mooy démocratie police ak gendarmerie ak armée ngir yàlla c'est des institutions wala c'est pas des institutions waaye c'est des organes yoo xam ne c'est sacré dans un pays nañ leen génn ci politique bi dem naa ba sama waa njaboot ñëpp a am psychose ñëpp a ragal si waa kër gi du xale yi du jigéen ñëpp dañoo ragal parce que jàpp nañ ne bu ñu génnee fii am na ñuy topp seen gannaaw tey su ma teelu doon intervenir ci ñu jàpp tey mënoon nañ ko sacrifier ndax amuñu benn firnde ni ki police sa bokk amuñu ko te ñaar ñiy ñëw saa su ne am na ci kenn koo xam ne sama waa sécurité dem nañ ba gis ni fu mu nekk mu ngi yor am gànnaay bi mu yor ci suufu chemise kon kooku ñun kan moo ñu ne police la wala gendarmerie wala renseignement généraux wala est-ce que ay nit yi ñu yónni na pour ñu assassiner Ousmane Sonko kon tey su ma gaaw leen intervenir ñii mënoon nañ dal ci kawam te boobaa heure bi musiba am na kon nañu bàyyi yii ñuy foowee yii c'est sacré te du kenn nag ku dul Macky Sall jël lii lépp. naan yaa ngi surveiller ay adversaire politique te ñi amoon yeneen farata ñu war a doxi ngir rafetal ci réew kon mbir maa ngi nii bi ñu xam naa ni bi ñu déggee ñu ne Ousmane Sonko ngi def live wala tudd na téléphone bi la ñu taal seen oto léegi dem waaye sax ba léegi ñu ngi fii taxaw nee nañu lii la jël si bu ñu dellu see nag téléphone baa ngi nii ñu delloo leen ko ordinateur ba sax mi ngi fii saa suñu bëggee ñu ñëw ñu delloo leen ko parce que la fa nekk ci ay renseignements jàpp naa ni la ca bëri suñu sécurité nationale la aw ma benn intérêt téye ko waaye dama leen bëggoon woon ni mbir mi du nii du lii mooy li ñuy xaar ci police ak yi nañu bàyyi opposition bi ñuy surveiller di ko euh, xokkatal bi essayer def ay rapport suba ngoon guddeeg bëccëg ci ñoom nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs que Macky Sall ci réew mi kon lii na fi dakk loolu daal mooy li ñu bëggoon a leeral ci lu gàtt di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal asalaamaaleykum